dal leen ak jàmm ci seen chaîne youtube talabul ilmi farida bu leen fàttee abonné activé cloche bi ndax ngeen jot lépp lu ñu dugal sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam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 sa yabqa alladi ma qaddamta min amalin wa ma siwaahu min al asyaai yafna wa yazhabu allahu akbar nee na sa yabqa alladi ma qaddamta na nga yëg ne fii àdduna bi fii nu nekk lépp loo fi mën a def lool dong dong dong dong dong ci ay jëf nee na loolu dong moom mooy des wallahi allazi la ilaha illa huwa kenn ku nekk ci ñun say jëf li ngi fi jëf donn moo fiy des fii ci àdduna bu dee lu baax lañu ñu nettaliku bu dee lu bon lañu ñu nettaliku bu dee liggéey yàlla la wax ko bu dee bu dee liggéey seytaane la ñu wax ko lépp loo mën a def ci lu baax lool dong dong dong dong dong moo fi des moo tax mu ne sa yabqa alladi qaddamta min amalin la fi des mooy la nga xam ne la nga jiital ci say jëf waaye mu ne wama siwaahu min al asiyaa'i naa wa yazhabu wallahi lu dul loolu loo fi denc du fi des loo fi rënk du fi des même boo fi bàyyi woon ay kër du fi des ndax danañ ko jaay ñeneen ñëw dëkki ko boo fi bàyyi woon ay waruwaay danañ ko jaay ñeneen ñëw dëkki ko boo fi bàyyi woon ay soxna ñeneen dinañ leen takk njaboot yi danañ tasaaroo lépp dem la fii des mooy la nga liggéeyal yàlla tabaraka wa taala loolu tax alquran di ñu wax ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah lépp lu ngeen jiital te yàlla rek rek rek tax ngeen jëf ko te yàlla subhaanahu wa taala rek rek tax ngeen def ko nee na loolu kese kese kese mooy la des saan moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu rendee xar ma mu ne yaay ay sa saraxeel yaay ba mu des faar mu ne ko lu des mu ne ko faar yi mu ne ko kon allahu akbar am nañ ay tiyaaba ba mu des faar yi am nañ tiyaaba ba mu des faar yi mu ne lépp des na ba mu des faar yi lépp des na ba mu des faar yi maanaam li fi nekk kenn du am tiyaabaam waaye la dem loolu la tiyaaba yi di nekk moo tax mu ne ko am nañ lépp ci tiyaaba ba mu des faar yi faar yi fi des amuñu ci tiyaaba waaye la nga xam ne joxe nga ko lool day ay tiyaaba kese kese kese kese lañ ci am moo tax mu ne ko wama siwaahu min al ashyaai yafna wa yazhabu lu dul loolu ci jëf yu baax yi nga def ci ay mbir yafna day jeex wa yazhabu te day dem wallahi allazi la ilaha illa huwa yi fëgg dënn yi wane doole yi wane nangam nangam loolu yëpp sunu borom subhanahu wa taala nee na day jeex waaye bu doon jeex rek jàmm waaye wa yazhabu dafay ànd ak poussière yi daal di naaw nekk pënd ak poussière kon doomu ndey yi mbokk jullit yi nañu yëg ne jëf ju baax rek moo am solo jëf ji nga jëfal yàlla rek moo wóor jëf ju baax moo am solo jëf ju baax moo fi des jëf ju baax la yàlla di nangu jëf ju baax la yàlla di fay jëf ju baax ëllëg mooy wallu boroomam ndaxkat kat ëllëg bu doomu aadama nekkee ci xat-xat doomu aadama nekk ci ay jafe-jafe doomu aadama nekk ci tolof-tolof jëf ju baax mooy ñëw jàpp ci loxoom ne yàlla kii kat maa ko xañoon puukare àdduna maa ko xañoon faw àdduna maa ko xañoon taraanga àdduna mu gëm ma di ma jëf kon tey yow yàlla maa ngi lay ñaan nga wallu ma ci waa ji yàlla daal di jox jëf ju baax wallu jëf ju baax daal di wallu jaamu yàlla boobu mbokk jullit yi ñoo ngi ñaan sunu borom jalla jalaalu wa azza kamaalu borom màgg gi di jëf ju baax di walloo doomu aadama ëllëg yal na seen jëf yu baax yi ngeen dugal ci daara ji wàllu leen fu ngeen mën a nekk fu ngeen mën a nekk ñoo ngi ñaan sunu boroom yal na seeni jëf yu baax di leen wàllu jëf ju baax dina wàllu àdduna jëf ju baax dina wàllu allaaxira jëf ju baax dina ràmm àdduna jëf ju baax dina ràmm allaaxira incha allah bu ñu yàlla mayee bakkan ba subaak jàmm jëf yu baax yu wàllu ay nit fii ci àdduna loolu lañ leen fas yéene indil ñu ñaan yàlla ñu may ñu fekkee jazakumullahu xeyran barakallahu fikum